ku jaaxle woo mbay ñëpp dajaloo toog di génn guus du root allah allah na sëñ bi lii lii folo c'est du folklore bu la naqaree deewal mais folo du diine nam c'est pas vrai daluma wasifa tudduma wasifa tudduma tiijaan ndax séquma ñoom dara lu ma leen yabee ba war leen ko tuddee ñaareel bi man sama famille lépp tiijaan la dara raxuma kon même bu dul dara danaa leen ci seet ñoom ku jaaxle woo mbay njàqoo mbay de barke alxuraan Omar woon mbay de ak galaas bu bëri démb mu dane woon bu leen naqaree ngeen dee tey nee na ay mbo mbokkam yëpp ay ti daanaka mbokkam yëpp ay tijaan lañ hmm, ah Omar subhanallah ñi ma gën a yërëm nag mooy gis naa ci ñu nekk ci réseaux sociaux yi su nit waxee da ngeen koy tontu ci xam-xam yéen da ngeen a dof yéen lu nit wax ngeen ne ko argument ak réewande benn argument la am muy aw yàq su ngeen bëggee xam-xam mais dem leen ci télé borom xam-xam yaa ngi woote bërki Demba Ndiaye Abdou sëñ Abdou Khadir taalibe Cheikh taxaw na lancé vidéo baa ku bëgg débat xam nga yéen ni ngeen bëgg a jàppe débat mooy seen laay boobu di am sam ni nga xam ne yéen a koy modéré ku wax lu leen arrangé ngeen tëj micro loolu du de da ngeen di tànn benn sofiyanke ak ba kenn ku bokk ci yéen ñu ñu kenn wax kenn tontu ngeen laaj ñu tontu kenn laaj ngeen tontu mais yéen yéenay posé question yi rek lu tax nangam lu tax nangam lu tax nangam ba carte gi jeex du noonu su ngeen bëggee débat dem leen ci télé nit su fekke day wax xam-xam ñun defuñu de ragal ragaluñu xam-xam borom xam-xam yaangi fess del ci tariixa fess del del wu ko sama galaas ki de man bokkuma ci waye ñu ngi fess del ci tariixa yi su ngeen amee lu leen jaxal dem leen ci télé yi ngeen def face à face ngeen poser question ñu répondre leen poser leen question ngeen répondre mais yéen yeena bëgg di laaj suñu leen tontu leen arrangé suñu ngeen jaxase carte gi nek ci seen ruq yéen ay tëj ku leen neex ngeen yëgal ku leen neex du ngeen yëgal loolu débat de Omar dara dëlu ko day dox dox lu su ngeen bëggee xam-xam su ngeen waxee ci xam-xam boroom xam-xam dinañ leen tontu ci xam-xam su ngeen waxee ci ak réewande dana leen ci fekk si ba mat sëkk nag loolu mooy dëgg gi bu leen kenn jaxase naan ay bu nit waxee xam-xam tontu leen ko amuleen leen argument waxu leen fi lu laaj argument débat yaa ngi fi da ngeen koy daw guddi ak bëccëg suba ak ngoon ngeen bëgg a wax nit ñi naan débat débat débat ak argument argument Omar ku jaaxle woo mbay